pour que lever du corps surtout pour les personnalités parce que l'autre jour c'était le cas avec Mansour Kama aujourd'hui avec le professeur prochainement nous avons une équipe même sous des croix rouges, nous sommes taxaw fii vraiment di faire nit ñi di fexe ñi ñu am ay distance parce que je pense que c'est Nous na ci li nga xam nous dina dimbali ci mbas mi. ñun dañu koy coronavirus am ak mu ñàkk ñun dañ koy def ça n'a rien à voir daw corona bi teewut moo gën waaye daw koy tax teewut am ko ñun ay jullit lañ corona bi maanaam ku ko yàlla envoyé nga am ko kum ko envoyé doo ko am waaye nag du tee ngay muslu. xam nga euh, c'est vrai nekkul lu obligatoire c'est vrai mais Sénégal la yàlla bindee mu nekk réew moo xam ni réew mu spécial la kooku yàlla moo ko def muy Sénégal ba tax na. Mo xam ci culture la mo xam ci diine la mo xam ci relation la mo xam ci éducation motax loolu du yomb ndax euh, lélé nga ubbi radio rek ñu bari dañuy wala suivre presse dégg ben xew-xew lu ñu dañ koy même bu mënul sax dañuy dem parce que dañuy avons ñukal ki nga muslu bi nag du tey ñu def ko mais ñun bu ñu amee surtout dëj vraiment mënuñu cee bañ a ñàkk ñëw man loolu ma fi tax a ñëw.